ak moom nag def le tour de l'actualité l'actualité de cette semaine dañuy commencer ci li gën a bees Cheikhna Bocoum mooy agression bi dal ci kaw suñu may euh, naataango Maimouna Ndour Faye euh, donte woy politique nga mais aussi am nga tànk ci monde communication donc dam lay bàyyi nga prononcé wu ci actualité bu tiis boobu euh, la ta ñuy jàng ci leneen <coughs> merci beaucoup <coughs> Fatou actualité bu tiis effectivement Fatou xam nga ñu ngi nekk ci mois de mars dañuy wax mm-hmm. mooy weeru jigéen ñi Euh, ñëpp di ko waajal di xool yan revendication la ñuy def pour jigéen ñi mm-hmm. rawatina sax lu ñuy wax violence contre les femmes loolu dafa dafa dafa doon loo xamante ne ñun ñëpp dañu bokk si ñu koy xeex mm. ñu dugg si mois bi rek am nouvelle bu mel nii nga xamante ne ne une agression lâche parce que surtout contre une femme euh, ignoble lu ne mënoon si xew nag mm. yàlla sutural nañu ba alhamdulilah nouvelle yu ñu am mu ngi si jàmm mm-hmm. mais aussi agression contre femme de média la parce que tey dañ jàpp ne liberté presse dafa am lu am solo bien que xamaguñu lan moo waral mbir mi waaw mais euh, tey ñëpp dañ ko dañ ko yóbbu foofu mm. euh, am si aussi raison bu valable ah parce que femme la boo xamante ne ne yàgg na di recevoir ay menaces mm-hmm. yàgg nañ ko artu euh, te donc lii su amee c'est normal que nit ñi ñu xalaatee foofu. donc ñu ngi koy condamné ñu ngi koy méttiwul bu baax a baax a baax di wax rek euh, ñoo xamante ne ñoo yor kaaraange réew bi ñu taxaw si. ba lu mel nii nga xam ne c'est un précédent dangereux mu bañ a kenn bañ a imiter lu mel nii. maanaam ñu def enquête yu war mobiliser tous les moyens pour que dans la diligence. Mm. ñu mun a am les résultat ba ñiy def ko caabi féete leen ginnaaw. Mm. loolu am na solo enquête surtout yu yu yegg parce que réew mi quand lu bëri xew na fi na Bocoum euh, enquête amul depuis 2021 ñoo ngi am ay série de violence euh, ay bakkan di ñu ciy joxoñ takk der yi ñuy wax ay enquête euh, pourquoi ñu war a yaakaar enquête tey te 2021 ba tey ñu ñu koy dig sottiwul waaw xam nga enquête moom toujours da nga koy da nga koy wax parce que munoo ko bañ a wax xam nga fii justice privée amu fi su doon rek nañu dem fayul ko wala nañu dem wëri ñu ko def peut-être que kon euh, réew mi kon du nekk état mais toujours da ngay tudd enquête tout en disant effectivement loolu loolu tamit lu doy waar la moo tax su ñu waxee amnistie euh, daf ñuy xaw a xaw a xaw a jaaxal mm. parce que dafa am effectivement ay xale yu ñu rey ah ñooñu dañu am waajur mm. soxla la vérité démb rek am na ko ci mujjee ñàkk bakkan démb si ñi ñu violenté woon voilà ouais. déjà et, loolu ce sont des pratiques yoo xam ne jàppoon nañ ne jeex na Sénégal mm-hmm. torturer nit ba après mu faat faat euh, bakkanam des si euh, wala tout simplement ñu mën a tiire si ay xale mm-hmm. yoo xamante ne ne euh, voilà gratuitement ñu dee mm-hmm. te amul benn suite loolu doon na loo xamante ne ne ñun mënuñu ko rafetlu au contraire dañ ko yàgg ne te jàpp nañ ne war nañu def lu war pour que loolu mu leer Euh, donc gëm nañ ne euh, justice rek ak état moom moo mën a leeral yenn yi état à travers les forces de sécurité de défense ñoo war a def enquête yu ci war euh, justice ñu mën a sanctionner. te loolu la ñuy xaar ci état de droit moo tax dañuy ñaax encore une fois suñu autorités yi xamal na leen ne fii defuñu ay enquêtes yu leer pour que yu mel nii bañ a amati dafay encourager ñu koy def. parce que duñu amati retenu mhm. dañuy jàpp ne du mujjee fenn. parce que y' a de sanction. y' a pas de sanction du mujjee fenn moom ah. su su soo ko jëmbatee si mm. boppu nit rek def nga ko un moof. parce que du mujjee fenn mooy mun naa dem si lu ma neex. il faut il faut mu am une démarche dissuasive. Mm. loolu daf ñuy yóbbu justement ci <coughs> amnistie bi la transition est toute am na ñu jàpp ne amnistie ci li nga wax ni la ñuy yóbbu parce que am na fee yu bëri yu fi xew diggante 2021 ba 2024 ndax bi ñu reporté élection yi ñeenti bàkkan rot na muy violence politique yoo xam ne am na yu ko jiitu loolu yëpp Euh, une loi d'amnistie bu ko ñëw fomp ko ak ni ko président indee euh, waxtaanu ci ne mu neex mu nakk di dama koy jàllale je vais instruire mes députés à l'Assemblée nationale jox leen ndigal ñu ñu voté ko euh, pour yow est-ce que amnistie xam nañ ne soxlawuñ ko sax mais pour pourquoi président Macky Sall bëgg ko def est-ce que amnistie mooy tey moom li ko mun a am lu mu ko garantir moom ak ñi mu ñi mu dendal. waaw xam nga amnistie soo ko bëggee wax ne nañu <coughs> nañu dem ci pardon. nañu nañu baalante réconciliation nañu réconcilier réconcilier wu euh, damay wax toujours ne lu habitude bu ñu am ci régime bi mm. mooy dañuy jël loo xamante ne lu rafet la lu taar la bëgg ko nëbbee loo xamante ne lu lu lu nébuleux la lu amul benn sens euh, dafa mel nii rek lu xew temps yi rek ñu ne woy nañ dem ci jaloog dialogue lu mm. baax la waaye mm. contexte bi ngay dialogué ak fi nga koy defee loolu moo jar a xool mm-hmm. am na si tamit wala waxtaan wala baalante loolu tamit lu baax la waaye si lan ngay baalante. Hmm. xanaa balaa ngay am si kay da nga xam lan moo xew la vérité d'abord. Hmm. <coughs> lan moo xew depuis boobu léegi. sooy baal kan ngay baal kan moo def. kenn mënuñu koo wax déjà déjà am na ñoo xamante ne jàpp nañ leen dugal ci kafe bi. Hmm. y a pas longtemps euh, nañ ñu bëree bëree bëri. ñoo xamante ne ñenn ñi témoignage yi ñuy def. wane na ne vraiment dañ leen a comme ni ñu defee ramasse guddi gi rek ramasse leen dugal leen euh, mu am ñeneen ñoo xamante ne ne ba fii may wax ak yow kenn boolewu leen ci mbir mi. Mm. parce que am na gis nañ ay nervi gis nañ ay nit yu tiire et cetera ñooñu en tout cas à ma connaissance dégguma ne kenn jàpp nañ ko ba def ko mandat de mm. donc loolu yëpp il faut que ñu lijjanti ko dafa am ay xale yu dee il faut que ñu lijjanti ko xam dafa am université bu ñu taal. dafa am lu si am dafa bëri il foog ñu xam ñan ñoo def loolu ginnaaw ba ñu xamee ñan ñoo def loolu nag sanction dafa war a dal seen kaw maintenant nag président buy ñëw mooy xool ndax dina waxtaan ñu xool nan la ñuy apaiser loolu si l' lañ koy mën a xam mais du moom moo koy lijjanti kon fi mu toll nii la l' amnistie n'est pas ko non l' amnistie n'a aucun sens aucun sens c'est-à-dire que euh, bon président mun na wax damay def amnistie parce que constitution moo ko may la Constitution dit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés mën na def initiative de la loi loolu la ñuy wax projet de loi mais du moom mooy imposer dara parce que projet de loi soo ko yóbbu assemblée nationale moo koy voté. mais Thierno Bocoum xam nga ne assemblée nationale lu fa président yóbbu du taxaw. a c'est ça que temps yi wallu daf leen di wallu. waaw c'est ça mais mais gëm naa ne ne pour bi mm. euh, mun na am ay fissures parce que je pense que fissures yi au sein de Benno Bokk Yaakaar commencé na feeñ. Euh, yàggul temps yi am na benn communiqué bu assemblée génn gis nga polémique polémique bu mu faire naître. Mm-hmm. ak même la violence des réponses ci communiqué bi pour wane ne y a voilà pour wane ne y a un problème qui est là. alors fissure bu ndaw rek su amee si Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. opposition bi bañ a voté mbir mi loi bi du jàll. c'est ça la vérité parce que ils n'ont pas euh, une majorité boo xamante ne dina leen permettre ñu lu leen neex attention bu leen fàtte Euh, la majorité est étriquée mun nañu wax sa benn moment dafay basculer d'un camp d'un autre tout dépend des des projets yu ñuy teg ak yooyu donc tey lépp mën na am mais encore une fois amul benn sens dans ce contexte actuel nga ne da ngay teg amnistie amul benn sens. ok en tant qu'ancien député ban message ngay lancé alors ñi nekk assemblée nationale toogal fa askan bi mbir mu sensible ni parce que bi ko président yëkkatee dégg nañu famille victime yi ñëw njëkk a yuuxu à part les défenseurs des droits humains ñu ne ñoom lu ñu leen mun a jox ndax ci communiqué conseil des ministres le président mais ñoom ñu ne milliards sax bu leen ko joxoon mënul far bakkan bi dem dañu bëgg ñu xam lan moo xew donc ginnaaw loolu euh, mu nekk mbir mu day waa moo xam ne aussi euh, député yi war nañ ci bàyyi xel. lan nga leen di wax ñoom euh, en tant que parlementaire représentant du peuple à l'Assemblée. xam nga xam nga soo nekkee représentant du peuple war nga xam l'expression qui dit que le mandat impératif n'existe pas c'est-à-dire que kenn waru la jox ordre ci li ngay def da nga war a liggéey sa aqulay taala benn ñaar lu jëm ci mbirum euh, euh, Assemblée nationale c'est un pouvoir kii kii est différent du pouvoir exécutif donc loolu lu muy tekki mooy parents yooyu di wax hmm. ci peuple bi lañ bokk association droit de l'homme yooyu di wax ci peuple lañu yow ak man ci peuple lañ bokk donc député bi war na xool ñooñu lu ñu wax ñooñu la war a teewal mais warul teewal président de la république président de la république amu si amu si kenn ku si ku si fatt wala ku si socc sax si mbir mi si mbooy mbokkam yaakaaru ma ne am na ku si socc donc du moom la concerné directement ñi mu concerné mooy ñu ñu rey seen doom ñooñu dañu bëgg lumière am affaire yi leer donc je pense que député bi war na jël la responsabilité xam na ne teewul président mais mais peuple bi la teewal te peuple bi tey mënul dem ci loi d'amnistie bi nga xamante ne ne dafay nëbb dëgg parce que c'est de cela dont il s'agit mën naa la baal ci kaw ma xam loo ma def. ak sax kat lañuy ñuy baal. moo tax moo la ba tey xam sax kan moo def ci kaw ma xam loo def parfois on parle de force occulte. parfois de nervi parfois de force de l'ordre donc ñun xamuñu sax ñan lañ wara a baal. exactement il faudrait que loolu yëpp mu leer. Mm. après nag ku mën a baale baale. ñu mun nañ def loi d'amnistie wala ñu ne non léegi nañu baale wala je sais pas mm. parce que ay dëkk am na yu mu koy mënoo wax na ne baale warul am fi àdduna waaye nit ki na xam dëgg na xam lan moo xew lan lan lañ def doomam wala mm. lan la ñuy def euh, place am bu ñu tàll wala lan la ñu lañ ko def voilà c'est important waaw ouais, c'est important je vais reformuler la première question parce que euh, ñu bëri jàpp nañu ne président Euh, bëgg a ragg deram ak euh, deru ay ñoñam moo tax mu bëgg a dugal boobu loi parce que c'est une loi impopulaire c'est clair est-ce que boobu gis-gis nga ci am. waaw mais loolu loolu du si mën a ñàkk du toutes les façon parce que duñu amnistier ay ay nit. Mhm. xam nga grâce ngay ngay tudd ay nit ne diw yow grâce naa la. Mhm. génn nga kaso du effacer peine bi mais da génn kaso. Mhm. ci yi nga nekk de détention yi lañ ay ay ay fee la ñu amnistie